ko kenn ku nekk am nga am. waaw waaw. Papa Ndiaye ay dugg ci way. ndaanaanu ndaanaanu waykat la yaa wa yaa wayli la. waaw xam nga. rega ju day wétali bët. dëgg la. waaw xam nga bu fekkee ne. combat bi xam attention xale bi daw Bébé Sène waaw war naa mën a sotti ak ca dëpp na ko lan moo xew. def na kat appui wala deful kat appui dafa jël tànk bi mu dafa tànk bi mu dëpp ko. doon

ma leen di wax la làmb nangu ak la làmb bañ arbitre soufflé na lakkantaan moo ngem boo ngemb lu xonq li cas moo ngem boo ngemb lu ñuul li mu nga di takk benn téere lakkantaan ak ki nga xamante ne bii mooy cas lakkantaan ak cas arbitre soufflé na ñoom ñaar jàppante nañ dóorante nañ ña ngay dóoran attention épirkil lakkantaan ak cas lakkantaan cas lakkantaan ak cas jàppante nañ waaw lakkantaan waaw cas jàpp na cas jàpp na cas moo ngeen boo lu ñuul li cas jàpp na waaw lakkantaan a ngay dóor lakkantaan a ngay dóor ca suuf lakkantaan a ngay dóor lakkantaan ak cas Baba Diaw moo ñu andi tey fii ci e-, stade Iba Mar Diop lakkantaan ak cas ay ca lakkantaan jàpp na cas jàpp na attention ey waaw waaw lakkantaan jël na léegi lakkantaan am ngemb lu xonq li moo dugal éprikit yi léegi lakkantaan ak cas attention lakantaan ak cas waaw waaw eh, ñoom ñaar dóorante nañ dóoral ma dóor waaw waaw lakantaan ak cas lakantaan ak cas lakantaan moo ngem boo xonq li cas moo ngem boo ngemb lakantaan ak cas waaw hey cas caxabal na léegi mais caxabal bi daa sori cas caxabal ba daa ñoragul cas jàpp na benn loxoom lakkantaan jàpp na benn loxoom waaw waaw hey lakkantaan ak cas lakkantaan dana ko lakk wala cas dina ko ne cas daan ko lakkantaan xanaa daa lakkale looloo tax ñu tuddee ko lakkantaan ana ana Lakantaan ak cas attention Lakantaan def na demi flexion léegi jël ko xale bi jargandalu mel lu wëndeelu taxawaat Lakantaan ak cas Lakkantaan ak cas eh waaye ñii la ñuy def ni ñu ngi doorante de attention ñu ngi génn saako yi arbitre souffle na arbitre souffle na. ah ñaari xale yi dañoo ñeme wante ah mbaa duñ jël avertissement dóorante ba metti na arbi suuf la waat na amul avertissement lakkantaan ak cas waaw am na avertissement kay am na avertissement pour cas lakkantaan tamit am na avertissement ñoom ñaar ku ci nekk am na avertissement lakkantaan ak cas ña ngay lewaatoo ñoom ñaar diggante lakkantaan ak cas ñoo ngi lewaatoo lakkantaan door na léegi la cas fayu na lakkantaan door na cas fayu waaw waaw jàppante nañ ca kaw di foqante ay baaram ña ngay foqante ay baaram ñoom ñaar tegante nañu bopp lakkantaan ak cas kawoo attention kawoo dóor mu daanu war naa mën a am ndax xeexu mbedd la xeex mooy dóoral ma dóoru boo tegee rek ma teggi am Jóob andi Njaay attention cas kal na ko léegi lakkantaan bañ cas ma ko doon teq waaw waaw diggante lakkantaan ak cas combat bu neex ey cas nga koy jël cas meem na ko yëkkati ko ma ngi koy wër ndomb da koy tak ey waay cas da koy tegal 16 cas koy tegal 16 xale baa ngi koy a xatar bi cas yëkkati ko ba ci kaw door nako ko ci suuf mu tura appi cas wër na ko ba léegi cas wër na xale bi ndomb budd na ko kal na ko waaw waaw waaw waaw waaw daanoo cas mi cas mi am na casa ah. waaw waaw ay cas daanu nga cas lakkantaan daan na la cas daanu nga wallaay wallaay kay kay di ko wallaay wallaay alaaji fay saando yow nga xam ana ne ànd ak di sama xarit di sama way di demu dem ilimaan yow yaay neex yow laa tuddee ay ca ñu doxal ca beneen combat ba caatu Morola ak caatu Kayre waaw caatu Morola moo féetee suñu loxo càmmoñ moo door noonu caatu Kayre mooy njool mi fayu na caatu Morola daw na jël. ay ca ay caatu kayre daan na ko caatu kayre daan na caatu morola da ko ca xabal wéeru ko ànd ak moom daan ko jël bu rëy caatu kayre daan na caatu morola la waaw jël ba gaaw na ma nga tingoom nan ko caatu kayre écrit booy kayre la jógee sumbu jun waaw waaw jërëngeen jëf mbokk yi ñuy topp ci Leewtoo TV tey nag dama taxaw ak sama mbokk bawol bawol muy Catalina nekk responsable fële ca euh, Tampico sama jigéen maa ngi lay ziar. Babacar maa ngi lay fay. ba yaa ngi si jàmb waa sant sëñ Touba rek. ñu gis leen tey ngeen bokk ci partenaires yi nga xamante ne bi yéenay gunge ki nga xam ne mooy Thiam production. waa Thiam waaw wax nga dëgg euh, mu ngi doog a débuté bon xamante wuñ sax mais laat mi nga xamante ne sama jàmmiñ la si làmb ji moo ma booleeg moom pour ma jàppale ko. ngeen gisee doxalinu làmb. waa sant sant rek tey wax rek li may tàllale loxo chaque fois rek gars yi ne leen ñu ñëw jàppale làmb ji parce que tamit jeunes yi fi nekk ñooy doomu réew mi te ñun aussi maanaam yi ñuy jaay muy produit yi di doomu réew mi ñoo koy utiliser te yaakaar naa ne kon nag balaa ngay jéggaani feneen nga commencé ci sa dëkk ba pare te làmb ñoo ko moom suñu sport la. lamb suñu sport la euh, Tampico tamit nekk boisson ba nga xamante ne bii consommé local la. waa Tampico moom cette fois ci sax duggoo ñoo moom ci làmb ji Tampico dafa nekk produit rek ci biir société bi siyaat mooy boîte bi. donc kii euh, Siak bi yoon king la dugal ci làmb ji. Ah, king la dugal waaw king gazeuse la dugal ci làmb ji. ëndaale ko waa ci làmb ji waa Leewtoo tamit ma leen di tàllal loxo ñu ñëw ñu liggéey man ak ñoom aussi ndax comme yow Jurbel nga dëkk. te tamit dafa nekk di liggéey aussi doomu Jurbel la. muy Pape Thialis. waaw Pape Thialis moom frère mooy sama xarit. waaw moo muy noonu. kon daal lépp daal c'est la daal. ñu leen di xaar suñu combat bi Tapha Tine ak Boy Niang. dañuy day baax ñu liggéey incha allah. am entre euh, king ak yeneen boisson yi lan mooy seen différence. waaw xam nga king boisson gazeuse la. tampico jus la rek jus naturel États-Unis lay jógee mais fii la ñuy defee mise en bouteille bi donc king moom boisson gazeuse la am na ay boisson énergisant ak yëpp mais différence bi rek mooy gaz ak naturel donc ça c'est gaz day digérer loo nit boo lekkee ba pare waa lool la. kaddu gu mujj gi lan la. waa kaddu gu mujj gi rek mooy di sant yàlla di kontaan aussi ci xame bi ma xamee ak yow. surtout mu jógee ci Adja Fall suñu mag ñu bokkandoo ko. madame la présidente madame la présidente ak sama mbokk bawal bawal bi nekk Leewtoo aussi muy fierté may gis Leewtoo donc su ma koo gisee damay am fierté xam ne doomu Diourbel moo ko moom loolu rek mooy sama kàddu gu mujj di wax rek Sénégal yëpp société SIAD tàllal na leen loxo ci produit am yëpp yi muy andi rawatina king bi ci tabaski bi na ci ñëpp jàpp. mën nga ñu ñëwal ci yeneen produit yi ngeen di liggéey bala ngaa tàgg. waaw am nañ produit yoo xamante comme détergent yi Harmonia ay Novelas yooyu suñu ay produit la. Tampico moom ñëpp a ko xam léegi ndax Oscar des vacances ak euh, Balla Gaye donc ñun ñoo ko moom aussi Baby Lac donc y' a pas mal de produit am nañ X-Men boisson énergisant fusion aussi nga xamante ne pour ñi def sport la donc y' a pas mal de produits daal te incha allah bu ñu commencé liggéey di ngeen gën a xam produits yi ñu yor ci boîte ba. ñu ngi leen di xaar la 8 août diggante Tapha Tine ak Boy Niang. ñu ngi leen di xaar yéen tam. jaajëf sama jigéen yaa merci beaucoup yàlla na jàmm yàgg. quatrième avertissement baa ngi noonu pour Mbaye défoncé Mbaye défoncé ak Yanda arbitre sifla waat na na combat bi gaaw àgg waaye ñu jëli bàkk bi waawaaw waaw Yanda daw na jël song yi am yëpp Yanda mooy song Mbaye défoncé ak Yanda Mbaye ak Yanda Mbaye défoncé waaye mais Bilal leer rafet na waay jëlal bàkk ba xale bee feesal stade bi caatu yaraax la tudd ci ay victoire yu bari la toog may divorcé ak yanda Yanda attention ña ngay dóorante ca bopp waaw waaw ngay rokkos Mbaye Difonse nga koy puus Mbaye Difonse la ñuy puus Mbaye Difonse boo génnee combat bi jeex de Mbaye Difonse ak Yanda waaw waaw Mbaye Difonse ak Yanda waaw waaw waaw jeex na de yandaa daan na ko léegi yandaa daan na mbay divorcé yandaa daan na mbay divorcé numéro 2 yandaa ñu ngi lay ziar maa delloo ziar baax a baax bi metti na trop lan moo ko waral metti na trop làmb ji dafa na dafa ma ñëw duma moo naa ko daan bu yàgg na sama gars yëpp dañu bul xëy kii téeméeri ko mbamaa ko ma war na suñu moo tax nga yeex koo daan ah moo tax nga yeex koo daan dama xam ne maa ko daax a bëri maa ko daax a ma ko doon door mu daanu mais waa Moussa dañ maa yónni yaa xam dem. man heure boo ko jàppee rek day génn saako yi. moom mooy daw génn man xam moom xam naa ma bu baax man daan la paire man làmb dama am cër war na Seyul Xadim te eh, dafa jot ma teral sama yaak sama papa paire war na Seyul Xadim ma dama bëgg ñu ñaanal ma. bi mooy sa ñaata combat. bi mooy sama sixième combat. ñaata victoire. cinq victoire benn défaite. cinq victoire benn défaite. benn défaite man maa yaandaa bu Moussa bar Seyul Xadim maa ngi taalaa Moussa bu sama yaay maa ngi nuyu a baax sama papa aw ma seen fay. Aïcha Malick Niang ak Sa Cadior ñaari numéro 2 Malick Niang numéro 2 Sa Cadior numéro 2. arbitre sifflé na diggante Malick Niang moo féetee loxo càmmoñ Sa Cadior la ñu jàkkaarloo Malick Niang ak Sa Cadior. Sa Cadior numéro 2 ñam na. waaw turandoo nag dafa foor. Malick dooraat na. kor ñaa Malick Niang numéro 2 Sakadior. attention kaaw mën na cee am de. mais Malick Niang mi nuroon ak turandoom de. ay Sakadior jël na tànk ba Sakadior jël na tànk ba ndax Malick Niang dana ca génn Malick Niang ngay door waaw waaw. ey ey waaw waaw Malick Niang daanu nga. Malick Niang prier daanu Malick Niang da doon daanu Malick Niang daanu na dar na bopp ba jalal ma Malick Niang Bilal Malick Niang nga tëdd ca suuf ooy ma fu ma jëm Malick Niang jëll bi da koo bett jëll bi da koo bett ñu ngi koy yëkkati ko jógal muy bañ ana Saliou waaye maa ngi ak Talfa arbitre bi soufflé nar ñu jàppante ayca Talfa daw na war na ko ndombo ma koy ko Talfa daan na daan na Pouye Talfa daan na Pouye 2 Talfa daan na Pouye 2 waaw waaw jël ba daa gaaw de dafa teg fees dafa teg fees fees la teg. waaw fes la teg dafa teg fes. Aïcha Bilal ma ngay baax Aïcha Bilal arbitre baa ngay waxaat ak ñoom ma ngay laaj ay siisam pare nañu wala pare wuñu xool na gauche xool droite ay ca arbitre baa ngay wax ak ñoom ay ca ma noona diggante Dougar Peul ak Jomaay Dougar Peul ak Jomaay waaw waaw Dougar Peul ak Jomaay Dugar Pël ak Jomaay waaw waaw cey Papa Ndiaye Aïda Mboup Dugar Pël ak Jomaay Pël ak Diomaye Dougar waaw waaw ah épercule la Diomaye dóor na épercule. Dougar Peul ak Diomaye da ngay damantey baaraam. diggante Dougar Peul ak Diomaye attention Dougar Peul bal na jël na teg ca loos wa waaw waaw Dougar Peul ak Diomaye.

Dugar Paul ak Jomaay ñoom ñaari ñoo ngi déglu wante Tapha Tine Boy Niang le 8 la incha allah bu ñu tabaskee ba pare. ca arène nationale. ca arène nationale combat bu mag. Boy Niang mooy recevoir. Boy Niang mooy bëree buntu këram. mais kenn du kenn Pape Tall. te Tapha Tine nee na ne lamb ji nekkoon buntu néegam sax ma daan ko. <laughs> waaye dégg nga ma lool Mbaye Babacar mais Leewtoo ay jine ngeen. waaw mais ñun nag dañoo bokk ci lamb am cër ci lamb mi ngi ay ca Xaadim Samb numéro 2. waaw. Dakar ji jeex na lamb ji jeex na Dakar Dakar Peulh jël ndam li Diomaye gagné leen ko defe naa bila loolu leer na Diomaye am na cinq avertissement Dakar Peulh na ko par décision arbitrale. ñi ngi ak euh, Baba jaw moom bi nga xamante ne bii moo jiite Thiam production bii mooy sa deuxième journée. ban jàngat nga ci mën a def. waaw Mbaye Arga maa lay fay. xam na ma sama deuxième journée. xam nga damay sant yàlla bu bu wér. la mu mel nii kon damay sant yàlla. xam nga sant amateur ñëpp xam nga. ban jàngat nga mën a def ci li nga xamante ne mooy làmb ji par rapport première journée bi ak deuxième journée bi. waaw mais benn la làmb moo baaxee noonu. chaque combat ak ñu koy bëre. combat la. peut-être le 15 bi incha dañu ñaan yàlla yàlla yóbbu ñu fi jàmm peut-être xam naa ANCAR dina dépassé niveau bi. le 15 bi kan ak kan la. Double Moteur Coins. Double Moteur Coins combat bu la xam nga damay ñaan yàlla yàlla yóbbu ñu fi jàmm xam nga yeegoo ak xel bi daal champion yi ANCAR nañ jël jéen jot na. jéen waaw jéen dafa bokk si boobu. xama la ba bokk si lëw ñoom saa kees lëw ñoom Moussa Ndoye xam nga ñoom euh, Papa Sow kon yaa ngi dox combat jeen ñoo bëgg nañ ko ñu am na ñeneen ñu ko bëggaat xama na mais gars yi nañ ko jël gars yi nañ ko jël nañ ko jël kon rendez-vous la kees incha allah ban innovation nga nar a andi lu bees ñoo fa boobu moom incha allah ku ñëw dina gis lu bees tax lu mës a gis billaahi jaajëf Baba jaajëf Baba ay ca Bilal Ndiaye grand combat baa ngi noonu ci diggante ki nga xam ne mooy caatu yaraax moo tent bopp bi féetee suñu loxo càmmoñ mooy bëre ak ki nga xamante ne bii mooy Zal Bawol arbitre baa ngay wax ak ñoom ay ca Bilal doxalal arbitre soufflé na génn seen diggante ñoom ñaar attention ey lay laaxi la caatu yaraax daan ko di li amul 10 secondes maas waxoon na ma ko lay laaxi la laa waxoon na ma ko borom SBT Média maas waxoon na ma ko na woon na ma combat bi du yàgg saa bawal jommi na saal bawal jommi na laa ilaaha illallah kenn mësta gis lii kenn mësta gis lii saal bawal jommi na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 yo KO Sa Thiès mooy ñaa daan ma